tab ba nga xam ne jël léppam jox ko sëñ Tuubaa ba nga xam ne dafay waxtaan daf dafa daan wax ne nañ miraasaat sëñ Tuubaa li fi nekk lépp mu génnee ko def ay liste ne nañ ko ci yóbbu boo koy waxtaan dangay ngay defee ne Seydina Ousmane mu yëkkati woon léppam joxe benn bi sallallahu alayhi wa ne goreel na ko maa dara Ousmane maa faala baxdal yow mu lu mu mën def gannaaw tey dara dootu ko wàññi dara ndax tab joxe léppam ci yàlla booy waxtaanee sëñ Abdou Lahad ci tab da ngay defee ne Seydina Ousmane moom cëram bii ko suñu borom jox ci coobareem te jox ko cër ci jaamam yi bokk ci nam ko cëre la cër boobu mooy suñu wartif na nan ko sàmm nan ko sàmm suñu kemkat sàmmee ko suñu lépp nag suñu kem kàttan suñu waahir ak suñu baatin nan ko ko sàmme kon Cheikh Abdou Lahad doy na exemple fonk sëriñ Tuubaa rek ak jeex ci moom tàkk ak laxasaaylu ko ndax sëriñ Abdou ma dolli la ci tuuti lu bari tamit lu bari mooy li ko waroon ci diggam ak njabootu sëriñ Tuubaa gi mu jaboote woon ak diggam ak ñi mu bokkaloon sëriñ Tuubaa ñëpp la ko gën a dimbali mooy ay doomi boppam da leen a seppi woon ne leen yem leen seen kër bàyyi sama kër bàyyi seen yoon néew ci looloo ko gën a dimbali ci xilaafam sama kër bàyyi seen yoon néew ci maa ngi ñi ma ko seqal laa ko seqal. njabootu Sëñ Tuubaa ñoom ñoo bindoo seen bindoonu bopp nga xam ne kenn ku ci nekk day xool moroomam eh, fa mu teg sëñ bi ndax ñoom dañoo jàpp ne. ni mu war a liggéeyal sëñ bi war a joxe addiya sëñ bi ci ñoom ñoom it noonu la leen ware ba tax na loolu xëy na kenn ci ñoom euh, du jekk naan ko lii mbaalaa noonu nii la def ak sëriñ Moodu ko tappin wu rafet nangul ko lépp mosu ko gàntul dara te ñëpp seere ko ba noppi ko gis bi mu ko noppee gis bokk na ñi njëkk njëkk jaayante ak sëñ Fallu jaayante gu dëggu goo xam ne nii mu jàppe woon sëñ Moodu la ko jàppe daan ñëw buy ñëw ci kër sëñ Fallou gis ngeen fi gis gi nekk gi gis gi fi la daan summee dàllam gi gis gii ci bunt bi fi la daan summee ay dàllam te it gisoon naa ak taalibe ak kilifteef ñor ko ñor goo xam ne am na lu ma fekkewut waaye ñoom ñi nga xam ne ñoo doonoon ay kilifaam doyloo woon nañ ko ci kaw am xelam mu rafet ak topp gum leen topp ak nangul gum leen nangul ba tax na bari na lool lu xew ci yoon wi loo xam ne doxaluñ ko seen bopp moo leen ko daan dox maqaama li qaabil bi riyaj walakum dula ilaykum salaamun saabitun maa yasurrukum jamiihan wa yabfiina wa kun sarmadan lura min al murtaqiin noonu it la wormaale woon mbooleem seex si ak mag ñi amoon cër ci sëriñ bi. foo xam koo xam ne ki doon nga ko ràññiku ci sëriñ Touba rek maa nga am wàccuwaay ci sëriñ Touba rek am na ay alaaxaat am na ay relation yu yu yu yu sori ak kër googee ndax lépp jox ñu jox njukkal sëriñ Touba wax naa la ne la ku jege woon waa gaawaan la rawatina sëriñ Mouhamadou Mamoun ragal naa ne tuddina ko doom ku jege woon waa Darou Mouhty la. tudd na doom borom daaru moxti dafa làqu tudd na doom sëñ Mahmoudan mi ngi fi eh, boo demee kër Cheikh Ibrahima Fall tudde woon na ko doom dafa làqu bi mu ba ci mujj mit ba mu seey ba jeex takk ci sëñ Tuubaa it mujj na ku mu amati góor ak jigéen bu dee góor Cheikh Amadou Cheikh Amadou Bamba lay tudd bu dee jigéen Soxna Jaara lay tudd kon moom ni sëñ Tuubaa waate woon ne moom jeex na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it noonu la jeex sëñ Tuubaa jullit xaqan diine rekk moo ko ñor musul nangu ku laal diine ji walla tarixa def yitte ci boole ak bennale lislaam ci réew mi daa ko joral dox ak wax ndax kilifa ko tolli moom ak dara jaam ak macha allah ak dayoom wàcce boppam di jóg di fekki ay nawleem di wax ak ñoom di diisoo ñoom ku ci xew mu yónnee la ndaw digganteem ak kilifa diine yi nekkoon awoon na yoon woo xam ni bu fi nekkoon ba léegi kon lépp nekk na benn. du murit la du tiyaan la du xaadir la kooku daal weesu rekk na ma ko waxee woon diggante xeex ak ñun ñett ñu bokk ndey ak bàyyi daal kenn mënu caa tam sa maam ba ñu ragal ko ñeme la kon nag def leen benn boole leen seen xol boole leen seen yéene boole leen seen bëgg-bëgg seen lépp ànd. këru diine yi nangul ko. wekk ko wormaal ko. Tijaan ormal la ko. Xaadir ormal la ko. Layen ormal la ko. jullitu kese kese ormal na ko ku dul jullit sax ormal na ko ñoom ñëpp daa ko seet si Touba ñoo ngi fàttaliku nganuk si Ahmed Tidiane si njaboot yëpp ngi ci loxoom njaboot ci kaw njaboot ci suuf moo leen njaboote ñi ci Tiwaawan moo leen moom ñi ci suuf sa bu ñu tekki woon ñu ni leen Sëriñ Abdou Lahad ngeen añ ci Touba ñu ñëw maam Abdoulaye Thiaw ba ci président Mobutu ak Sékou Touré ngir feddali kóllëre diggante almaami Samori ak Serigne Touba Khadim Rassoul. Considérons Guinée comme une chance inestimable que Dieu a offerte à l'almaami Samori que son dernier jour se soit passé en présence de son ami, de son corréligionnaire celui qui a incarné comme lui les valeurs de l'islam sur le continent. suñu borom dénkoon ko saayir su mat sëkk waaye mu fees dell diis gann ak baatin xar baax la feese ndax baay ba moo ko waajal duy ko ay leer sol ko ay mbóot mu fab wilaaya ji muure ko ak xel mu jub te rafet xam-xam bu leer te matale. ndax sëñ Blaat li mu defar ci saayir la muy bari bari defar ci baatin ko te ci ay eh, kii yu mu koy defee yoo xam ne yi eh, ku kooka ak kam ko siqal du ko xam. am na kilifay yu tawat fii yoo xam ne yii wala ci xarbaax yoo xam ne yii dama ko fekkee ndax tur tur sax day xaw day waar waaye nag def na fi ay yoo xam ne yii doon sëñ Tuubaa lu bu wér tax mu mën ko ndax. nakataballaax boo xam ne sëñ bi dafa wax ne ki bind araf yii mooy ki dellu ci boroom ginnaaw bi mu jullee yoor yooru altine yoor yooru altine googu ci wam sin sëñ bi wàccub liggéey ñu indi ko tubaa ci guddik àllarba ja guddik àllarba jooju wu sëñ ab laxaat mi ngi ko fekk sëñ mi ngi ko fekk tubaa ci daara ji mu nekkoon ci kër sëñ am satu sëñ Abdou Lahad jaxate moo ko nettali yor naa kaset ba ku ku mu leerul ba ñëwee ma tegal la kaset ba nga dégg ko ci sëñ Abdoulaye Jaxate sëñ Abdoulaye wax na ne dañu tëdd guddi ñoom ñaari ñoo bokkoonum néeg ñoo doon bokk lal nee na sëñ Abdoulaye ne ko pëkk pëkk jugal indi nañ sëñ tubaa Touba nee na ma ne ko bàyyi li ngay wax waaye sëñ Alsaan Jaxate mi ñu jàngal mi ngi nii di dégg nee seen néeg yi dañoo taqale woon nee na mu toogaat cell ba ci yàgg ci lal ba ni jugal indi nañ sëñ Touba Touba mën na ko bàyyi li ngay wax waaye suñu alsaan jaxate mu ñuy dégg ba ci yàgg nee na mu ne tekk ab diir bu yàgg ba mel ne néewutul ci laal bi ba mu yàgg mu ne ma dem naa ba ñëw sax ña ngi ko def coroon bépp ga mbaaral ko fa bañ xëyee suba lañ dégg xew-xew bi kenn ci zahir yeesiwul sëñ Abdou di ko ko wax waaye moo yee sëriñ Abdoulahi ne ko sëñ Tuubaa ñëw na ci dëkk bi man dama cay dem sëñ Abdoulahi nee na dem na baab diir mu dellu siwaat ne ma sëriñ bi ñëw na ba suturaal nañ ko ba noppi kon ku ne xam na ne loolu it yeneen mbiri baatin la te sëñ Ibrahima jaxat nee na ba ma xëyee suba laaj ko noo ko noo ko xamee dane ko xet gi ma ko xeeñ loolu nag baatin la وقد رفعت بالبقاء صوتي مر الذي نكى دوني بلد من موت نفسي ما تزي عن الموت بقاء الله أبقاني الله بوجه الله nit ku ne at yi nga war a dund at mu ca génn génn ni te lim ba te dootu delsi weer yi nga war a dund weer wu ci dem dem na su dootu si bis yi nga war a dund bis yi nga war a dund bis bu ci dem dem na si dootu dellu si saa yi nga war a dund saa su ci dem dem na su dellu si bu ci dem te yóbbaalee la dara boo demee doo fa fekk lenn. ñaar fukki fan ak juróom ci kori wi mu féete belel ndeke mi ngi ñuy waajal mbetteel. fa la féete di bégal dongo yi ak di tontu daayira yi guddik altine fukki fan ak ñeent ci diggiw tabaski mu mel ni mbir xew na nit ñey laaju ak lijjanti sa ëllëg sa kenn reerul ngir tiitaange àdduna bu amoon solo kon yàlla def fi dara lépp lu fi nekk nit ñee ko fàggu la daa wax yàgg naa tàggoo dañu ko déggul woon yàgg ñu koy misaal dañu ko gisul 18 juin 1989 xibaar borom journée de prière pour le repos de l'âme de Serigne Abdoul Ahad Mbacké a drainé à Touba des foules de talibés, de musulmans venus de tous les coins du pays, d'Afrique et du monde entier, rendre un dernier hommage au calife défunt et prier pour celui qui fut pour eux un guide éclairé, un exemple de droiture, d'homme de parole, de piété, de dévotion, dont le souvenir de la forte personnalité restera indélébile dans les mémoires. àddunaa baylaat dem na belel wéet na kàbb gay jooy na yoonu murit ser na lislaam sëngéem na ñàkk caaxaan fekki baayam matal sëkk yaakaar ju rëy ja mu tegoon ci moom yokk yaatal yàkkali bàyyi fi yoon wu dëgër murit yu jaaju muy façon yéene lu mu fi bay muy lu dee si topp daanu ko topp nan ko doon toppee lu loola santaane it daanu ko def muy rakk muy doom muy sëtam daanu ko def lu jëmmam ba mën a koy seet yi façon yéene yi lu dee si digle kenn du ñu ko mën façon yéene lu dee si tere duñ bokk ci ñe tax yal nañ ceen dimbali dimbali ñu ci suñu njaboot diir bi ñu fii ne ba mën a koy seet ci barke Sëñ Tuubaa ci barke Sëñ Tuubaa Euh, Cheikh Abdou Lahad bis penc du fa yées kenn. gannaaw ñaar fukki at ak benn ci bopp yoonu murit ci juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar nib jant borom jamono so tànn dëkkaale ak alxuraan mi mu doonoon ñibbi ci dëgg mi mu tànnoon. adduna nangooti ci ñun ab soppe nangooti ci ñun ab bàyyi ki njariñam weesu woon nawet ci réew mi demam gi faw mu metti réew mi ma di leen wax nag laaye joo xam ne néewaa na lool sëriñ Tuubaa tàggoog mbooloo ti waxu leen ko moom bu jëntale ko samay wax saabixu ilaa maxfiratin min rabbikum وجنة أرضها تعالى السماء والأرض أهدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته